Mm. tey bi nga xëyee nga yëg tiis bi naka la la def. waaw bett na ma trop dëgg la moom kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu mos dund di nga mas dee waaye am na yenn yoo xam ne yenn saa jëlay dalay jëlee kaw waaye bii moom waaw jële na ma kaw lool bi ma nee bëreet gis ko ci benn instant dama woo waa ne ko bàyyil li ngay def xam nga lii rafetul lii du du lu baax bi ma ko waxee jékki-jékki waat gis ko feneen gis ko feneen gis ko feneen ci laa yuuxu man xam ne lii moom waaw. dëgg la waaye yàlla rek ay dëgg tey bu luy amee nag ñu kontaan ci sénégalais yëpp ndax li ma gis fii dafa rafet te dafa neex sénégalais yëpp ñëw bokk benn bokk xam nga booloo ñëw bokk tiis wi dañ leen di ñaanal rek yàlla jàmmal leen te yërëm aji dem bi xam nga ñu yërë yàlla yërëm ko ci aljanay si te kàttanal njabootam dëgëral leen ba nga xam ne rek lépp lu fi seen bàyyi liggéey rek dinañ ko mën a relève bi dinañ ko mën a jël wutu ko ba lépp rafet ndax li fi seen baay bàyyi nii yombul ndax réew maa ngi nii réew mi yëpp fi daje kon dañuy santaat sénégalais yi ndax mbooloo bi ñu booloo bokk benn xam ne yàlla rek ay dëkk ndax li yàlla rek ko ma kontaan nañ jërëjëf waay